déggoo ma man sama fierté la bopp waxuma la à part ñeneen mais man sama fierté la maa tey daanaka ñoom ñoo tax ñu dugg si làmb ay Gris Bordeaux si mel ni ay Papa Sow si mel ni ay Balla Diouf ku si mel ni Djily Mbaye ñoo ñoo tax ñun ñu dugg si làmb suñu papa Moustapha Gueye naate ñoom ñoo tax ñu xam làmb nekk biir faas juddoo biir faas gis leen ñoom ñuy bëre ñuy jaar seen tànk di rampe Kombo Gris suñu grand la suñu lépp la suñu lépp la suñu grand di ko ñaan combat bu mu jëm may ko ndam bu kawe njortam te allahu rabbi ndakaar yëpp a ngi si ginnaawam. avant avant nga koy ñaanal ndam bi damaa dégg ay coow lan la wax ma wax ma da daje fenn. non coow amul ndaxte dafa dafa moom dafa sama bis dafa bàyyi léppam ñëw teewal ma ñëw sol blouson. ne ma maa ngi waaj combat lu ma dee maa ngi waaj combat yàggatul mais yaa tax ma ñëw fi jaral nga ma ko sama rak nga sama booy nga comme woo sama grand la Modou. yow Gris yow Gris Bordeaux mosuma dégg ay jafe-jafe ci yow ci Gris Bordeaux ci komba gi rek yooyu. Modou loolu jafe-jafe boobu rek dafa ndaw man Gris Bordeaux doon bëri ba pare du ma ndéeg du ma reer. bilaay damay te dama waroon xëy di jàngi damay ñëw ñibbi rek tëdd nelaw yow fajar. waaw léegi su daanoo doo du ma reer Modou barke Serigne Saliou ndax de dafa nekk si xol yi suñu borom mooy def loolu dama ne képp mbër bi bëree ndakaaru bokk man supporter laa booy bëree damay supporter ndaxte ñun fii lañ dëkk ay boo town lañ mais ñëpp ñuy bëggee ñëpp ñuy bëggee mais ay boy lañ fii lañ dëkk te taan bu xew la ñun suñu bis la dañuy bàyyi lépp waaw dooleel ko ku mu doon suñu borom may ko ndam mhm. Mm-hmm. lool rek la mais kon nit ñi ñoom ñi ngi ñi mais lu ñu mon garaawal ay wax. non dara Gris sama grand la Modou Gris sama grand la grand moo jox cër la sama grand la man booyam sama bis dafa bàyyi lépp lu may wax dafa bàyyi lépp ñëw teewal ma amul lu lu ma koy fee lu dul ma tamit ma teewal ko dooleel ko kàttanal ko suñu borom may ko ndam si combat bu mu jëm. yow combat Gris Bordeaux Balla Gaye lu mu lay fàttali. waaw la rek. ban archive moom may ma si rek may ma si wala nga may ci ñi di la. archive la rek combat Gris Bordeaux Balla koy bëree. mel man maa koy bëree. yaa koy bëree. mel suñu borom moo def loolu. Gris suñu grand la moom lañu jiital Balla Gaye champion la sama grand la borom bu baax la mais Gris na ko yàlla may ndam mooy suñu grand. waaw ko yàlla may. waaw am nga si droit parce que Fass nga dëkk te aussi wax dëgg yàlla doomu Ndakaaru nga Sénégal nag kaay ma wax la benn affaire Sénégal garaawal wax la ñu mën bu leen déglu bu leen calculer boo waxee sa li ngay wax wax nga ko ba pare jeex na erreur mënul ñàkk ci àdduna te fi kenn def fi erreur Gris Bordeaux ñëpp xam nañ ni yow moom ngay supporter ñi la xam xam nañ yow Gris mooy sa mbër kon ñeneen ñi nga xamante ne ñi ngi wax yeneen wax bàyyi leen ñu wax ay vidéo ak am na sax garaam bu ne dina la koc waaw loolu may koc ah, man moom damaa judd ñu koc ma koc moom jaaxal ma lambaay ya ngi lambaay randu baa ngi ci mun maa jooja degen ma ca ngoonan lu rëy la maa jara bak ñoo jara falal ñoo jor sax yu takk ñoo jara way te ñoo dim waagu ñaay gisal